j'ai tout le temps mun naa am beneen occasion mais yow comme yaay invité bi mm, waaw euh, donc mën nañ mën nañ tàmbale si si si. par ça dépend. si si en tout cas mu ngi nii jub jubal jubanti la ñu wax. voilà voilà. Do, slogan ou nouveau principe dañoo tàmbalee slogan nag ci ay. kii en fait en fait déjà. Mm-hmm. Euh, man damay bëgg bu ñuy waxtaan si mbir. Mm-hmm. ñu faire la part des choses. ok euh, que jub jubal jubanti. c'est un principe sénégalais. Mhm. maanaam c'est pas c'est pas le propre de Pastef ci la coalition Diomaye président dafa nekk benn cëslaay bu xamante ne ni moo yàgg nekk le soubassement ñun de notre culture. Mhm. ñu jël ko gën ko fësal mettre en avant. Mhm. donc euh, comme li ñuy waxee comme tubaab lu muy waxee souvent mooy l'éthique Kéba Mbaye doon ko wax l'éthique comme mesure de toute chose. donc dafa nekk benn mbir boo xamante ne ni ñun ñëpp. ñoo ko war a approprié wu parce que tey bi ñu la dénkee lu xamante ne ni askan bi yëpp ñoo ko moom euh, da nga war a def sa kéemtalaay kàttan ba askan bi gis ci seen bopp mais pas nga nekk fa pour servir sa bopp e tey boo jëlee la coalition Diomaye président nga jël son excellence de président Bassirou Diomaye Faye gis-gis bi ñu am tey ji mooy lan mooy lépp lu xamante ne ni askan bi moo ko moom ñu delloo ko askan bi donc ce slogan dafay ñëw Euh, daanaka nekk le soubassement de tout que ce régime là va construire mais boo xuusee nga dugg ba ci biir a biir on va se rendre que ne les choses sont beaucoup plus profondes que ça te may dalal xelu ñëpp may wax ne gis nga y a un discours certes qui est politique mm-hmm. parce que lu ñuy def politique la euh, politique nag mooy nga am sañ-sañu wax sa xalaat ci dëkk bi ni muy doxee mm-hmm. politique tey ji mooy nga jël initiative wu maanaam bàyyi yow say mbiru bopp parce que ñun ñëpp en tant qu'acteur politique ku nekk am na loo xamante ne ni ça t'est propre. Mhm. ça relève du domaine du privé. mais ñun suñu bëgg bi ñu bëgg Sénégal moo tax ñu ne nañu jël loolu lépp ñu tegee ko de côté jël suñu temps investir que si li nga xamante ni moom mooy doxal dëkk bi. parce que la particularité tey de Pastef ak ñu mu àndal xam nga mooy lan mooy que ne dafa am ay cadres yu bëri yu xamante ne nii. masuñu xalaat def politique politique masul nekk seen mbir mais à travers un discours à travers un projet à travers une vision boo xamante ne nii elle est partagée par tous les Sénégalais dañu adhérer à cette cause là mm-hmm. man bi may dugg biir Pastef j'étais déjà directeur d'une société ok te du société nationale une société multinationale ñeneen ak ñeneen aussi tamit bu ñuy dugg biir Pastef ñii ay ay ay ay ay chef de service lañ ñii ay chef de division lañ et cetera. Mhm. donc ñooñu noonu en réalité seen bien-être bopp jiitalu leen. Mhm. li leen jiital tey jii mooy comment faire pour participer à la construction de cette nation. Mhm. moo tax bu ñu demee ba accès fii nii même au niveau des postes de responsabilité la chose que est à saluer mooy que on a responsabilisé des jeunes des gens yu xamante ne dañu ñëw ak xam-xam bu yees. des gens yu xamante ne ni tey bu ñu utiliser expérience bi ñu am dans le secteur du privé dina am jeexital bu am solo ci état nu muy doxee te gëm-gëm bi ñu am ci projet moo tax tey damay wax souvent ci samay discours xool leen dans l'histoire politique du Sénégal chaque parti politique s'identifie à un leader politique mm-hmm. mais boo ñëwee Pastef bi ñu écarté de la course le président Ousmane Sonko mais la majeure parti des gens dañuy wax ne Ousmane Sonko bu génnee Pastef du Pastef du du non seulement du am candidat mm. mais même bu amee candidat par extraordinaire du gagné mais nous on a su montrer que ne Pastef c'était pas une question de personne du question Ousmane Sonko du question. Euh, c'est une vision le le président Bassirou Diomaye Faye mais c'est une vision. ok bi ñu jëlee le président Bassirou Diomaye fay ne moom mooy jiite la coalition mais de manière unanime. tout le monde s'est accordé sur ce fait te loolu encore dafay firndeel ñun position bu ñu taxawee tey jii muy que ne suñu bopp taxu ñoo jóg donc encore une fois les Sénégalais il faut qu'ils accompagnent ce régime la parce que y a beaucoup de d'actes yoo xamante ne ñu ngi koy poser te ces actes là vont irrémédiablement dans le sens voilà euh, de de d'aider la population sénégalaise